bis bee laaj loolu du bis boo xamante ni rambax la teg temps yooyu déedéet bisu dal la waaw ah, bisu dal la. mën a yóbbu Jokal fu sori la mais bu la mën a yóbbu yóbbu. c'est vrai ñun ñaan ñëpp am na fu ñu mën a yóbbu. mais maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam. ci kat dina lu metti wala du ko dat. non loolu mënul ñàkk. oh avec la manière. yes